kon ñu bàyyi suñu Ablaye Kane jànkat xasida moom soxna su gaan mu wax am ay wax toog na nag ci miir yi maam li ñuy wax xolli bi jàpp na ci gis ngeen ko ni ngeen ko gisee nii maanaam takk na lax saay ñëw ci liggéey bi waaye nag maam liggéey bi ko gën a ñor mooy yëkkati xasida yi ak way soxna su gaan kon loo ñuy loo ñuy loo ñuy barkeelu soxna su gaan abdul ilahi jogal te way tay mam li gën a rëy fay jarana cey yaa bari ay may bari sañ-sañ man yaa raw yaa bëgg gis yow raw ku la xam raw ku la am yow raw fu mu nekk moo fay gën raw moo fay gën sañ moo fay gën am moo fay gën a xam fay gën a gëm kooma sa jox yow kafe ga bi am fajug xaajo fegal ñu ay moy fegal ñu ay moy defal ñu ay may ba nuy joxe may di dàq ay moy ban ngay may ci Seex Ibra Faal mi njiit lay abu rijaal saxal nga sant Cheikh Ibra Fall ba xëy di sàkk ay rijaal danu ngay may ci Cheikh mi njiit tey abo rijaal saxal nga di sàkk ay rijaal soxna su gaawaan danu ngay may ci Cheikh Ibra Fall mi njiit tey abo rijaal saxal nga sant Cheikh Ibra ba xëy di sàkk ay rijaal sàkk sàkk ngay góor yi sàkk góor say soxna yët ñoo ma ni góor yow yaa di buur bi sax ci buur bam jox la tey luy gën gi muur sàkk ngay góor yi sàkk góor eh. say soxna yët ñoo ni yow di eh. bi sax ci bam jox la tey gën jërëjëf borom Touba jaaraama maam Cheikh Fall jërëjëf borom Touba jaaraama maam Cheikh Fall jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jaarama maam Serap macha allah macha allah macha allah sëñ kon nag gis ngeen ñu ngi ci liggéey bi xéewal yaa ngi ñëw gaay fa yaa ngi liggéey macha allah kon nag ñu ngi ciy fasaale ñëpp rek ñu ngi ciy fasaale ñëpp ñu ciy fasaale ñëpp ñu ngi ciy fasaale ñëpp fasaale euh, waaw leen góor lay wax ci liggéey bi. ah liggéey bi kontaan rek si kontaan rek. nga ni yëgoo ko da ngaa ñëw yëg-yëg rek. waaw yëg rek waaw ndax soxna moom sama sama waajur la moom laa jo kii moom mooy sañeen waajur moom. tur bi naka la. man man la man la Ibrahima Cissé Diallo. Ibrahima Cissé. Diallo waaw waaw guy mel nii. macha allah kon nag liggéey baa ngi noonu macha allah liggéey baa ngi noonu jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf